soññee ci lu jëm ci wàllum fayum patente yi ci biir marché yi waaye waxtaan itam ci lépp lu jëm ci jafe-jafe marché yi mu jëm ci wàllu courant wàllu ndox ak lépp loo xam ne rek dana tax seenu nekkin ñoom commerçant yi gën a ñoŋ loolu nag sababu ndaje mi nga xam amal nañ ko ci maire bi Touba Serigne Sidi Mbacke mi nag moom mooy premier adjoint au maire bu Touba. marché yépp dañuy war a soxla lu mel ni bouche d'incendie ndax euh, xamuñ fu jëyee di ñëwee te nit ki li wolof di wax bala xoddi ko bala ngaa lakkale daf ci daf ciy baax beneen bi yeneen yi des mooy vidange bi loolu moom aussi fas nañ ci yéene ni mu gën a gaawee ñu mën cee taxaw ci marché yi nga xam ne am nañu ay fosse te mu fees te ñu war ko vider ramassage des ordures aussi danañ jéem a def benn programme xëy na amuñu oto mbalit yu bëree bëri mais UCG ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu mbalit mi danañuy wax maire suñu génnee moom mu bind leen lettre xamal ko ni ko marché yi dañuy soxla ay dépôt yoo xam ne nii dañ fay teg kees goo xam ne nii pour ñuy mën a ramasser mbalit bu ko defee su fekkee oto yi ñu am mën nañ semaine bu ni ñu jaar ci ñetti marché ci benn bis bis bi ñu jaar ci ñetti marché benn bis ñu jaar ci ñetti marché yaakaar na dana tax mbalit mi di wàññeeku te loolu aussi danañ ko gàddu en préoccupation ni mu gën a gaawee li nga xam ne nii mooy éclairage public bi aussi loolu ngeen wax am na ci loo xam ne ni extension lay nekk li nga xam ne extension la mën naa am du gaaw mais li nga xam ne courant dem na ba ci biir nga xam ni tiire ay poto lay doon rek mu nekk ci biir marché bi kii yaakaar naa aussi loolu du war jafe ndax am nañ ay poto yoo xam ne nii wekki woon nañ ko ba mu tëdd fii yooyu aussi danañ ci jox xalaat maire nu mu ko mën a commencé def ñu defee ko incha allah bu soobee Serigne Touba. bokk ci seen i càkkutéef ñu gën leen a jëmmal ci marché yi ñu nekk kii di monsieur le maire installé leen ci kanam askan wi ngir ñu gën leen a jox gëdd Serigne Sidi Mbacke mi moo topp ci Serigne Abdoulaye Ka. Euh, euh, beneen bi des mooy responsabilité responsabiliser les les les personnels du marché maanaam délégué de marché yi ñu gë leen a gëddaal. maire ñëw fa installé ko ci kanamu nit ñëpp xamal leen ni kii lu mu wax maire bi moo ko wax lépp lu mu leen digal da ngeen cee war a ànd moom su ngeen fekkee mu leen cee ànd ak moom moom mu ñëw wax ñu lu tax mënuñoo ànd ñu su fekkee maire dafa war a def délégation mu dem fa mu yónnee fa délégation pour bu ñëwee loolu aussi mu waxtaan ci ak ak waa marché ba. ngir nag patente yi mboolem commerçant yi nekk ci marché yi dugal ci seen loxo itam ndax xam nañ ne day dugg ci mairie bi waaye day génnaat ci mairie bi ñu dolli ci xaalis rek def ko ci askan wi. loolu nag tax na délégué de marché bu Touba Daaru Marnaan bi di ci soññ mboolem ñi mu bokkal marché yi. xam naa ñu ngi leen di gën a fàttali yéen ñi nga xam ne yéenay délégué marché yi euh, ñoo ngi woon fii ci mairie bu Touba di waxtaan mais dafa mel ni wax nañu ne patente commencé na. Euh, moo bëggoon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk délégué marché yi nag ñu jël suñuy responsabilité kenn ku ci nekk waxtu bu patente duggee ci biir marché bi nga jël say décision ànd ak ñoom ba yàlla dogal patente fayu marché ba ci jàmm ak salaam ndax fayu googu nga xam ne moom la patente di fayu te benn coow du jub loola defe naa ne day doon lu xam ne dañ koy dimbalee tey Serigne Mountakha Mbacké dimbalee dimbaleeku gépp kilifa gu xam ne am na marché boo xam ne mi ngi nekk ci sa gox euh, ndax dimbali googa buñ ko defee jàpp naa ne ñun ñëpp suñu satisfaction lay doon. li nag benn la ci ndaje yi nga xamante ne bii mboolem délégué de marché yi woon nañ ko ngir waxtaan ci lépp loo xam ne rek dana tax wàllu jënd ak jaay rawatina nekkinu commerçant yi ci biir marché yi gën a ñoŋ waaye nag ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo lay yilif muy mairie bu Touba.